Ah, solo solos ndaje bi mooy ñëw fii ci chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar parce que dañoo jàpp ne projet Agropole euh, secteur privé bi da cee am liggéey bu am solo bu mu war a def parce que nguurug Sénégal euh, bi mu taxawalee ne day euh, taxawal projet Agropole yi daf ne projet Agropole duma ko def man kese dama ciy def li ñuy wax partenariat public privé donc ñëw fu mel ne centre de commerce de Dakar pour ci seen rencontre économique yi wax ak acteurs nationaux yi parce que njiitum réew mi def nañu ci projet Agropole daf cee bëgg amal euh, place bu am solo bu mberal secteur privé national donc loolu moo doon solos ndaje bi wax leen lan mooy projet Agropole wax leen yan opportunité d'investissement aussi moo am pour ñoom sur toutes les chaînes de valeur euh, des différentes agropoles que nous allons mettre en place des différentes filières mais aussi recueillir yan mooy seen besoin en matière de facilitation et d'incitation et état du Sénégal war a def pour euh, rendre euh, les projets agricoles compétitifs. waaw dañuy préciser ne comme dañ ne projet agropole dañ koo def de manière zonal dañ ne zone bu ne ci Sénégal dañ koy def euh, agropole dañoo jël Sénégal ñu xaaj ko juróomi pàcc benn projet bi yi ngay wax mooy mango jeeg kaju ji. ma ngi euh, am ci li ñuy wax agropole sud am si am na maïs parce que buñ nee agropole sud agropole sax dañu ne pour buñ demee ci benn gox dañuy seet yan produit moo fa gën a jëm ñu def ko filier prioritaire donc Casamance dañ ne euh, mangue anacarde ak euh, maïs la ñuy jël dam filière prioritaire mais boo nee filière prioritaire mooy yi gën a jëmmal am na aussi yi nga xam ne mooy filière complémentaire yi koy accompagner yu mel ne les produits forestiers non ligneux lu mel ne lem gi lu mel ne banane bi lu mel ne orange yi wala citron bi boo demee ci zone centre euh, gerte la xorom ak céréales lu mel ne dugub mboq ak yu kenn xamul boo demee ci zone noor ceeb la soble ak li ñuy wax yàpp ak der donc noonu lañ ko tënkee lal ko ci projet agropole donc euh, euh, li ngay laaj xam naa ne mooy li ñu waxoon léegi ne projet agropole bu ñu jëlee lu mel ne mango ji ci Casamance dañoo jàpp ne taux de transformation bi foofu téeméer bu ne 2 pour cent lañ ci tool ñu ne bu ñu ko jëlee 2 pour cent yóbbu ko 20 pour cent dana dolli ci économie Sénégal ci mala malum euh, bénéfice lu toll ci 42 milliards ci entreprise yi ciy liggéey ñu ne bu ñu jëlee ndaamaraas yi wala kaju bi. ñu jël taux de transformation yi 5 pour cent yóbbu ko 30 pour cent waaye aussi valoriser doom bi pour def ci ay jus dana indi ci koomu Sénégal lu toll ci 934 milliards lu tell ci junni milliards te xam nañ ne budget Sénégal ma ngi toll ci ay 3000 milliards donc euh, ñetti xaaju budget Sénégal donc wane rek ci benn projet Agropole Sud maanaam lim mën a indil ci euh, koomu Sénégal waaye aussi di wax ne am na préoccupation bu am solo loo xam ne dafa yitteel njiitum réew mi njiiteel askanu Sénégal yëpp mooy xëyum ndaw mi te projet Agropole da cee nar indi jéego yu am solo wax nañ ne euh, nombre d' emplois yi nar a créé ci Agropole Sud mu toll ci 14500 emplois directs 35000 emplois indirects mais dañ ne ci objectif ak indicateur projet yi dañ ne emploi yooyu ñuy créé dañ fexe ba 60 pour cent ñu jagleel ko ndaw ñi. waaye aussi 50 pour cent ñu jagleel ko jigéen ñi donc voilà lool mooy. solo njàqare gu ci maanaam bu ñu xoolee bu baax ni euh, Sénégal fukki këru liggéeyukaay yoo jël juróom-ñeent yi ay këru liggéeyukaay yu ndaw la yi koppar yi ñuy bari la ndax amul njàqare ci wàllu woowu ngir ñoom ñu gën a seen loxo ci mbir waaw koppar yi ngay dégg mooy investissement euh, public bi loolu xam nga boo nee agropole da ngay def yoon def ay indi courant indi. Euh, li ñuy wax xarale yu bees yi internet tabax bâtiment yi pour fi ñu ñu mën a nekk tabax ay école pour ñu fa nar a liggéey tabax centre de formation ay laboratoire loolu mooy euh, euh, investissement public moo toll ci 57 milliards 600 pour Agropole Sud waaye boo seetee euh, investissement privé 103 milliards la mais 103 milliards du ne kenn koy indi dañ ne non seulement Agropole bi danañ fexe ba petite moyenne industrie yi ak petite moyenne entreprise yi gis ci seen bopp te loolu dañ ciy taxawal liggéey kuréel gu mel ne bureau de mise à niveau jàppale leen aussi ci instrument de financement yi nga xam ne nguurug Sénégal taxawal na ko pour euh, financer petite moyenne industrie euh, mais aussi ña ngi xaar entreprise yu doy parce que loolu aussi mooy euh, solo sa agropole lëkkale agro industrie yu ndaw yi ak industrie yu mag yi parce que damay joxe exemple ci mango ji léegi ne groupe Kirène dafa ne dafa soxla pure purée de mangue bu bëri mais moom xëy na du am jotu def purée de mang bi am na petite moyenne industrie yi déjà yu ci liggéey ñooñu dañuy fexe ba ñuy def contractualisation ak lu mel ne groupe Kirène di ko fournir en purée de mangue donc euh, danañ fexe daal ba petite moyenne industrie yi ñu fa fek wala yi nara taxaw ci agropole bi duñ leen bàyyi ginnaaw te danañ gis seen place ci ci ci agropole bi. financement bi waaw financement bi ni ma ko waxee euh, par agropole la nee naa leen financement agropole sud 57 virgule 6 milliards la euh, ñu am ci. gouvernement Sénégal daf ci indi wàllam lu am solo ci budget bi euh, banque africaine de développement ak banque islamique de développement euh, indi yeneen partie financement bi boo demee ci agropole centre wax naa leen financement yi nu mu toll euh, toll na daanaka ci plus de 60 milliards loolu ngir réewum Belgique indi na ci déjà 22,5 millions d'euros subvention banque africaine de développement ne dana ci indi juróom benn fukki million de dollars banque européenne d'investissement ne dana ci indi juróom fukki millions d'euros euh, noonu lañ ko toppee ci agropole yi agropole euh, centre non agropole ouest aussi noonu lañ nar a tënke financement bi euh, réewum Sénégal toujours day jël ci budget mais wut ci aussi parce que projet yi diis la pour réew mi wut ay kuréel yoo xam ne da koy jàppale ci wàllum financement. suñ projet wax na comme ni ma ko waxee léegi. buñ euh, jëlee financement yëpp ci euh, projet agropole dana ëpp juróom téeméeri milliards ci wàllum financement ci projet agropole yi